ñu jëf ko ci seen teeru bakkan sëriñ bi jox leen ay xéewal yu ko nate jox leen ak wér te defaral leen seenu seenu taal bi ak seenu xol ci barkeb seenu sànn maa ngi sant nag man sama cant bopp boo xam ne amel naa ko sunu sant waaw ku ne xam nga mooy def waaye ren daf ma daf ma daf ma daf ma ko woon caxan war ma ne ma mën a ndax li fi xew diggante daaw ak ren moom rek ko mën ah moom rek ko mën moo tax ma koy sant ci ndam bu doon bu ma bàyyi woon sama bopp tax na suuf bu yàgg kon dugg nañ samay yàgg bu yàgg waaye fa mu il veille au waaw ah, moo tax gaañe nañ leen gën a góorgóorlu ah ñun kenn mënunoo teelee fa mu ne moo ko bëgg moo ko sañ te moo koy def te defam boobu mu koy def kenn mënu koo tee am moo tax nanu defaraat laxasaay gën a góorgóorlu xam ni mbir mi kenn ku ci ne dalaa wax fa mu jaar ak jun ak lam ñu defal moom képp ko mën loola nag jar na fu nu taxaw di ko fa wax di ko fa wax bañ ni kii daa bari wax loolu rek a nu war suñu dëgg ak moom di ko sant guddi ak bëccëg ak di ko ko jooyal te xam ne dund yi dan dañu feene rek lu nuy tudd di ko tudd waaye mission bi benn la te càkkutéef gi lenn la mooy sàkku ngërëm yàlla bu ñu ci kenn ëpp. maa ngi leen di sant bu baax na te ngoon bu soobee yàlla bëgg naa nit ñi reer si dinañ taal fii ay reer mbaral ñi nga xam ni moom ñooy ne ci tànn sant naa jëwriñ Xaadim Ngom léegi laa jaar ci wàññam ni benn benn nga noppi mu jël lépp teg samay loxo ni ma bu la neexee tuur bu la neexee suur bu la neexee ma ne ko dañ koy joxe nañ koo jox mbooloo mi jëfe nga ndigal wàcc nga yàlla na ko ko gën man ñaanal naa ko yi ñaanal naa ko ndax wane na pëste wane na yoon mooy berne berne sëriñ bi yoon bi dafee su jilu ëpp kon berne yooyu na ko ku nekk di faral maa ko ci sant di ko gërëm jox naa ko ndigal mu reer yi ñu taal ko fii ci pénc ci kanamu bâche bi waajal fi ay reer pour guddi bâche ku fi ne ak mbooloo bi ñuy fekk si man fee reer kon nag nag ñëpp ñëw mbooloo bi ngoon nañ ñëpp teew bu ñu reeree ñi ko man nañu ñëw reer bu ci yor gan ba mënoo reer si boo reeree moom ba noppi na nga ànd ak moom ñëw teew si ci tànn ndigal laa sëriñ Fall Sarr bi sam sa min ama achar Babacar Diouf bi sam sa te di la sant tey bég lool ci sunu taxawaay bii nga taxaw ci sunu biir ak dalal gii nga dalal sunum xel ndax sa sang ba sunu sang ba sëriñ Béthio bi nu ko gisatul bàyyi woon na fi kàmb gu xóot goo xam ne jàppoon nañ ne kenn mënu koo fees sunu xol yi widd jeex tàkk waaye nga laxasaayu rek taxaw taxawaay bi nga xam ni moo la war ndax lii nga nii nga taxawee loolu képp moo la war ndax wolof njaay dafa wax ne mburu mbër mburu ku ko ku ko wéetu ku ko wuutu fa mu tëddoon soo jógee di nga xam ne mburuy góor waaye dalal nga sunum xel nag ndax sa njàmbaarte saw fit sa bëgg sa gëm sëriñ Cheikh Mbacke sa ànd nag mu ànd ak moom keroog da ngaa wax ba ne ko dama laa ak ragal gi ma la ragal. tey ziar man la universel Bakka Mbaye jëwriñu Touba Diamalaye li ci santaat bu baax rek ni ko sëriñ bi digle woon rek la ko doxee ñoo ànd ko ak moom te rëccuwuñ ci dara muy une continuité ndax sëñ Béthio moo doon def lii sëriñ Saliou waxoon ko def naa sa màggal muy sama sama màggal te ci loolu rek la ñu teg gannaaw ba ñu jëfee ci ndigal yi mu dëppoog aussi ndigal li mu jotoon muy mbaaru Matlabul Fawzayni te ñu jébbal ko sëriñ Cheikh ab cant la. defee màggal gi nii ñu defee dañuy xam ni ay yokkute kepp la te santaat nañ ci Serigne tubaab bu baax a baax a baax di ko sant di ko jaajëfal moom Serigne Sall ndigal Thioune mi ngi ñuy teg ci yoon di ñu di ñu nemmeeku di ñu dimbali ndax ñun ay murit lañ te liggéeyal Serigne Touba rek lañ soxla waaw santaat nañ bu baax. waaw xam nga le mouride dans son essence c'est un aspirant voilà te Serigne bi méthode initiatique bi nga xam ne moom la indi mooy l'œuvre mooy euh, teg ñu ci yoonu jëf waaw ndax jaamu yàlla la. ba ñu jëf la aussi te ci loolu la ñu teg boobu ba léegi moo tax réccuñ ci dara gis nañ yokk tey waaw moom daal li fi xew dëppoon naag jàngale Serigne Touba li fi xew dëppoon naag jàngale islam ndax euh, spiritualité la ñuy dund ah dans son essence aussi ba tax na xam naa ni mu duñ mën développer lépp waaye li am ba am daal ñu ngi seedal waa àdduna ni ñun sant nañ bu baax. ñun boole seen cantaakoon yi ànd ak Serigne Saliou Ndigal Thioune sant nañ bu baax yeneen ñu leen di sant bu baax a baax seen taxawaay jaajëf. mu ñu koy defandoog ñëpp di jënd yi nag di reen di màggal gis nga ni muy demee donc màggal dans sa généralité yëguñ ci loolu ak cant ak yokkute waaw li tax sëñ Bàcco nag particularité ay taalibeem loolu la. mooy basage âge maa ngi lay wax léegi boobu ay élèves la ñu woon la ñuy jàngal jaayante ci Serigne tubaa nga gis koo xamante ni ci yooyu jamono da daan jël téléphone am jaay def ko ci bés Serigne Touba bi jigéen ñi tekki seen i jaarooy nopp jaay ko waaye tey jii bu ma la fa yóbbu woon ñoo ñii ñëpp tey ay kilifa lañ fa ñuy liggéeyee kon sëriñ bi naxanu e, ñu ngi sant bu baax nag tey ñaan rek ñu yàgg koo fekkee yàgg koo ànd ak yéen it ñu ngi leen sant bu baax seen taxawaay yéen waa leeral jërëjëf daf may gën a ñaax rek gën ma soññ rek ah euh, loolu moom ay kàddu soñña la ci man ci sama jëm ji ak ay kàddu cant donc euh, fidélité bi defe naa ah, wax dëgg yàlla ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk borom donc nous on est des cantakoon euh, quoi qu'on puisse aussi fii la ñu bokk donc fii rek la ñu xam ñun cant gi rek la ñu xam donc du loo xamante ne lu difficile la ci la ñu nekk te defe naa à chaque fois ci ngeen ñuy fekk donc dañ ciy sant yàlla suñu borom kaddu yi nag du kaddu len dul ay kaddu cant ak ay kaddu yoo xamante ne yokkute la ak soññe ci sama jëmm ji donc waaw xam nga sëriñ bi nag daf maa yar donc looloo looloo gën a yokk tax wax dëgg yàlla yokkute yi moom euh, euh, da day day bien placé pour wax ko donc wax dëgg yàlla euh, keneen bu ko waxee moom il est bien placé pour wax yokkute yi nga xamante ne sëriñ bi def na ko ci jëm Bijou Ngoné donc ci hormis Bijou ngeen di gis ci tele bi dafa am beneen Bijou boo xamante ne à chaque fois moom ngeen di fekk Touba donc euh, euh, mooy kaddu cant yooyu rek nga xam ne saa suñu dajee rek ngay tombe ci ci ci kaddu yooyu donc moom laay wax rek léegi nii. Pape musaa Ngom laa tudd ñu may wax jëwriñ jëwriñ authentique waaw mu Cheikh Béthio Thioune waaw sama teewaay fii de lu war la ndax taalibe laa ne ñëpp di jëwriñu sëriñ bi. bokk ci cellule communication muy njurul TV ak njurul communication mel na ni nag dëgg yàlla ñu ngi bëgg loolu ci ñëw ngeen fi ñëw ndax dañoo jógee léegi ci cérémonie officielle bi tey di bësu màggal gi màggal du sud safar di bés bi nga xam ni Serigne Touba moom moom woo mindaa foo ni dul moom gëmuñu lu dul moom muy Serigne Béthio Thioune yar nu ci nàmpatal nu ci xamal ñu màggal ñu koy defee loolu nag euh, aaya la daanaka ndax suñu borom a ko wax la in shakartum la azidannakum giñ naa man yàlla ku sant giñ naa ñu dolli la te bésub sëriñ tubaabu bi da ak cant ndax ci ak cant la ko woote te sëriñ bee ñu xamal ni kat moom moom sëriñ tubaa tànk tayam mi saa su ne day gàcceel tànk tànk yu démbam te waaw moom ak cant rek ndax li euh, yokkute da cee feeñ ndax màggal lañu daan am ànd kook sëñ Saliou Thioune bi ñu njëkk am bi fi sëñ bi mel na ni luy def secret moom sëñ Béthio mel na ni def na nu màggal waaye xëy na ambiance bañ ca bëggoon dëgg-dëgg donte des des na ba te fi may wax ak yow di suñu yéene yeggaguñ ci waaye nag ren tànk kanam yi sëñ bi da cay fës Tanzania عشر ندي جدا كل بزمزام نم عشر بنت جدا كل بزمزام زين بيجو أم نم سمقل دم زين شخل ميد كلا سمقل دم زين بيجو أم نم سمقل دم زين my